بسم الإله ينمر ñi sant mbooloo mi fi teew ñëpp xam nañ ni guddi gi xat na lool waaye nag bëgg xam-xam ak jëfe ndigal moo tax ñëpp ñu par ñu bari teew tey waaye kenn ku ne xam nañ ne ah, jot amul ñaari point lu tànn ko mooy wane nangoo jàngu maam Thierno bi mu toll jàng ak nangoo jàngale bi mu tolloo ci jàngale Sénégal toll foo xam ne ndaw yi war a jàng nanguutuñoo jàng ñi leen jàngal nanguutuñoo jàngale jël moom Thierno comme exemplaire teg ko ci kanam Sénégalais yi wax leen ne leen kii ne la nit jul war a mel waxu waxuma la murit bi mu tolloo jàng def na leen man pour xam la war a xam bi mu xamee wàggaam xamal nañ ñi ñi bëggoon a xam te en toppat kon dégg wéy ci ndigal loo tax ñu tànn thème boobu des mooy crise d'autorité mooy ñàkk féttalu gi xam moo moo xew léegi ndaw ñu ci bari bari amatuñ kilifa ndaw ñu ci bari ñu gutuñu déggal seen kilifa ñu indi maam ca moom ca exemple bu nekk exemplaire ci nangoo dégg ndigal te nangoo jëfe kenn ku nekk yoon xam naa ne ba mu gënee àdduna ba ni ñu béy bayti ci ndigal rek loolu wi dëkk bi ndigal ko fi indi koo xam ne dem nga ba nekk muskalaf nekk muskalaf nekk magum jëmm te gan sax boo ko amee maanaam la wax doom tuba doo ko sañ doo ko sañ jox sa bopp da ngay laaj sa kilifa kon ñu koy tuddee mu wax la ko kon kooku jëfe ndigal ci moom la ci moom moo mën a yem dooy wax tudd ne jëfe ndigal wala nangu ndigal fekk jaraloo sa bakkan sa jëf sa nangu ndigal des na maam Cerno bi ñu fi dafa risque dundam risque dundum jabotam ndax àll boo xam ne amul ndox amul yoon jiwutub dëkk ay rab yi fàdd rek fa nekk si kilifa jox la digal demal dëkk fa nga nango ko kooku fokk na ndigal kilifa kon jaay na bakkan jaay na bakkan tamit ci jëfandikoo sëñ tuba bi nga fay jóge na jóge na jóge na euh, ndar ñëw ko war dem mbàkki bari euh, dix heures ci guddi ka départ war a fas jàll àll boo xam ne kenn xamu ko yi fàdd bari lool lëndëm kiris nga dox bàgg fu Mbàkke bari kooku jaaneen bakkanam ngir jëfe ndigal Sëñ Tuubaa kon jot na sëkk nit ñi wala jeunesse bi rawatina taalib murid yi ñu roy maam Cerno Ibrahim ci nangoo xam bi ñu tolloo ci xam lu nangoo xam le bi ñu tolloo ci xam le nangoo jëfe ndigal seeni kilifa loolu moo tax ñu tànn bi jox ko sëñ Cheikh Gueye te ni mu ko waxee itam mu ñu la ko lool ñëpp mën cee jàng màggal gii ñu ju ma itam ñu dëgmal si incha suba ci ndigal lañ ko sofi ndigalu sëñ Fallu Mbakke ci la ko joxe si mu daaw balla mu taxoon ko du ko def de maam Cerno bi ñëw ñu bisa bëyti sëriñ mu da ko tàmbaloon di ko def bis bi mu génn àdduna bi sëriñ Fallu lu toogee xalifa ne bisu daqaar bu ko teg bisu bënt wax ne maam ñàkk doon maam jëm Cerno Birahim koo ñàkk bisu bis mu dem génn àdduna bu reesee bu reesu ko bëggee bisu naqaar daa koy tànnal ne ko bis bi sëñ Tuubaa ñibbisee ñëw ndar woo maam Thierno Ibrahima ñu daje ko moom moo jara mag kon bés bii muy mag la ci kon ci ndigal suñu problème ko def kon jëfe ndigal ñëpp la war na ko te ñëpp la war waaye rawatina waa Daaru ñu ngi doon am la war nangoo jàng ñëpp la war waaye rawatina waa Daaru Muxti ndegam ñu ngi bëgg a roy maam Thierno Ibrahima kon kàddu yi mooy kàddu yi nga ne sëriñ Bassirou waxoon ne naa ko wax mu jóge sëriñ Abbas sëñ Cheikh ñu lay sant bu baax ñu ngi ngir bu baax dama fekke sa waxtaan yu bari ci bitum réew daayira maam Cerno bi nekk daayira aussi ba tey maam Magal yaa ba tey am na ku lay tegal sa teg ba ba pour fi at ba mu ñëwee daayira la bokk nañu cotisé damay cotisé nii yëpp am ku ne man dalaa tegal weewu weewu de ba léegi sa bañ koy tek do tan tan la ñu yef yef bokk ñu ngi suñu sant bu baax di la ñaan yalla ñaan jataay bi ñu téwaat ko deewul ñu fi teew ñep ci kilif sant leen ndax wax jàll yet yot ko waaye jataay bi xam-xam jar na lii ndax xam-xam bu ko sàggan ndax li dox diggante mal la nit mooy xam-xam nit bu door a nekk xale bu ndaw mala lay doon ni ma lay doxee ni lay doxee ni ma lay waxee ni lay wax doo am benn langage mooy wax fu mu toog fay def lu mu bëgg a def fu mu toog lu mu bëgg ay jooy la koy la koy waxee bu maree day jooy ñu xam ne mar na bu xiifee day jox ñu xam ne xiif na bu gëmmantoo mu taw day jooy kon nit cosaanam mala la waaye lu mu gën a màgg di gën a xam di gën a tàggoo male di gën a màgg di gën a xam tàggoo male ba nekk doomu adam nekk nit ku nit bu sàkk day xam dafay dal cosaan mooy delloo mala kon xam-xam nañ ko fonk nañ fonk jëfe ndigal yàlla na def jàmm def ñu dégg topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bismillahi